mbokk yi sant leen gërëm leen ci seen ndax ñun si rajo Rewmi FM dimanche bu jot ni leen koy fas yéene di amale di émission gox bi tey nag ñu si fas yéene dalal ki nga xam ni moom moo di Pape Goré Faye ñu gën ko xam ci Go Faye nekk leader wala coordinateur mouvement réaction mouvement national la waaye parcelle tey am na fa benn jëmm nga xam ni mu ngi ko fay taxawee Go Faye ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. ñu ngi leen di nuyu Memba di nuyu waa rajo bi ak télé bi réew mi TV réew mi FM. <laughs> di euh, nuyu waa Parcelles Assainies fi ma mhm. jógee di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Dakar. Mhm. alors go dañ koy waxtaanee rek ci li nga xam ne moo di jëm ci coronavirus bi mu mënuñu ko esquiver tey li nga xam ni moom moo jëm ci tendance bi mel na ni mu ngi wàcc mais ba tey message bi ci ndaw ñi ba tey lu tax du jàll. Mhm. waaw effectivement parce que xam nga euh, coronavirus bi moom dafa nekk loo xamante ne c'est une maladie très vicieuse. Mm-hmm. bu mu ñëwee dëkk yëpp la la sonal. Mm-hmm. mais comme tu dis le constat mooy euh, mu ngi wàññeeku un peu partout. Mm-hmm. te ñun Afrique peut-être euh, yàlla may nañu loo xamante ne on peut pas l'expliquer jusqu'à présent euh, côté science. mais peut-être dégâts yi mu def dans les pays occidentaux def ko fi. donc ñu si sant yàlla maintenant. Euh, l'histoire a montré que les mesures barrières bi nga xamante ne la mesure barrière bi nga xamante ne moo gën a efficace mooy le port du masque parce que mhm. yeneen yi gis nañ ne bon doxul parce que même des pays comme la Suède mhm. foofu amul amul amul amul restriction amul mesure barrière mhm. même le port du masque n'est pas obligatoire donc juste que pour wane ne rek feebar bi kenn maîtriser wu ko. Mhm. gis nañ ne mi ngi wàññeeku alhamdulilah. Mhm. nañ jàpp rek ne suñu ñaanu kilifa yu baax yi nekk si dëkk bi la te ñu mhm. respecté mesure barrière bi nga xamante ne mooy port du masque. ci diwaanu Parcelles Assainies euh, naka nga gisee fan boo dégloo rek dinañ la wax benn ñaari cas ci li nga xam ne moo jëm ci coronavirus bi foofu ci diwaanu Parcelles Assainies yéen ay leader d'opinion ngeen ca diwaan ba ndax yéen a ngi ci bayu seen waar. effectivement effectivement donc euh, ñu ngi si bay suñu waar ah. parce que la femme dynamique d'ensemble commencé à les gens ils sont ils ont commencé à avoir une conscience citoyenne considérable quand même mhm. te moi parce que gis naa ne ndaw yi tooguñu di xaar lépp ci mairie tooguñu xaar lépp ci état mhm. ku su nekk mu ngi def sa maximum jéem a dugal sa loxo sa poste constitué en association di di di euh, def sensibilisation li mhm. nga xamante ne dañuy jouer dañuy boole dañuy joindre l'acte à la parole quand je dis joindre l'acte à la parole mooy au-delà que de de campagne de communication seulement. Mm-hmm. ñii dañuy jël ay gel hydroalcoolique. Mm-hmm. ñii di jël ay masques ñii di jël ay lenn ak lenn di ko distribuer. je mm-hmm. pense que c'est comme ça qu'un bon citoyen doit se comporter. ba ba tax na euh, mairie bi itam amoon na gafa génne ci euh, li nga xam gafaam xaalis bi nga xam ni dina ko xeexee mbas mi. Mm. alors gis nañ fi ay leaders d'opinion ci Parcelles Assainies di ŋàññi. maire bi wala mairie bi nu mu yoree gestion li nga xam ne moo jëm ci coronavirus bi jàpp na ni ak koppar yi ñu leen jox yëpp dafa mel ni liggéey bi matewul. Mhm. yow lan moo ci sa gis-gis ci wàllu yu ni mel. je confirme cet état de fait hein, parce que bon xam nga ñun moom comme on des administrés dañuy observer on est de bons citoyens mais teewul tamit. Euh, dinañ euh, gis li nga xamante ne lu baax na. Mhm. lu baax la si lu maire bi di def. Mhm. ñu ñu tàcc ko. si euh, ce qui n'a pas marché nañ am intelligence ak euh, audace critiquer ko parmi ce qui n'a pas marché mooy euh, la gestion euh, de la Covid-19 mooy bi bi bi feebar bi ñëwee pour man la première chose à faire en tant que mairie mooy nga xool ci sa budget comme l'a fait le président de la République avec le budget du pays réorienter ko si yi nga xamante ne mooy des aspects prioritaires parce que priorité yi day changer en fonction de des contextes contexte bi dafa laajoon Mm, la mairie déployer des fonds. Mhm. génnee ko defar le maximum de masques parce que toog ci tele bi di wax di yuuxu di joxe ay conseils baax na. Mhm. mais dafa di joindre l'acte à la parole moom moo gën a am solo. Mhm. c'est-à-dire j'aurais été le maire. damay allouer un budget spécifique à la confection de masques. ça permettra industrie euh, textile bi nga xamante ñoom ñoo nekk parce que ni les tailleurs. ñi nga mbas mi du leen laal parce boo leen joxee ñu fabriquer des masques dinañ am. un peu de de de revenu de, de mm-hmm. mm-hmm. en même temps nga pare nga jënd ay gel hydroalcoolique pour la population bon man gisuma ko en tout cas mm-hmm. man ma gis mooy des des citoyens euh, des des comme man des indépendants ñu bëri def nañ ay gestes xamante ne que je au passage mais de la part de l'équipe municipale mën na am am na mais c'est pas consistant en tout cas gis naa ñu def campagne de communication c'était bien mais juste pour wax leen doyul et Euh, boo xoolee eh, aux États-Unis en France des jeunes se sont rebellés ne mënuñu respecter mesures barrières yi hmm, duñ restrictions yi duñ ko dem mais loolu état d'esprit la mhm. maintenant c'est au manager au leader euh, au représentant légal mu mhm. tenir une bonne communication euh, mais boo mhm. taxawee di wax ak nit ñi di am nooy waxee duñu la déglu et di vont manquer de respect en contrepartie su ma la déggee mooy maire bi euh, Moussa Sy wala ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa mairie bi dañoo lajj si ni ñu yore coronavirus bi. absolument tout à fait dañ ko lajj complètement heureusement que <laughs> y a d'autres yi nga xam ne ñu ngi fa ñu mel ni euh, ñeneen du ma bu ma limee damay fàtte ñeneen ñi tamit nañ ko gisee neneen <laughs> def nañ ay actions euh, par euh, je veux dire mouvement citoyen yi fa nekk des acteurs politiques mm-hmm. def nañ ay actions pour montrer l'exemple au maire. Mm-hmm. malheureusement il n'a pas pu déchiffrer le le message. mais maire bi nee na moom ba mbir mi xewee woon na ñëpp. pour ñu ñëw waxtaan xool yan jéego la ñuy mën a tëral ngir mën a dàq mbas mi ca diwaanu parcelle xanaa yéen ndaje boobu wuy si woo leen c'est faux c'est faux bu fekkee loolu wax c'est faux euh, il faut avoir le courage de dire que c'est c'est archi faux maintenant euh, comme li may wax rek euh, Parcelles Assainies mhm. dañ nekk trois cent mille habitants mhm. ñu jël kenn ak soixante seize personnes ñu nekk ci conseil municipal bi kenn ki nekk le maire mhm. ça pas dit qu'il est plus intelligent ça veut pas que moo ñu moom. Mhm. dañ ko fa teg pour muy doxal suñu budget d' accord. Oui. maintenant kooku bu fekkee ñun des acteurs indépendants euh, am nañ volonté impliqué wu si gestion localité bi. Mm -hmm. en toute responsabilité bu nekkee tu es un bon manager tu dois te rapprocher de ces gens là. Mhm. xam ne ñii c' est des c' est des c' personnes ressources. ñëwul si yéen. non en tout cas ñëwul si man. Au contraire, moi, j'ai essayé de rapprocher de lui euh, pour envoyer ko parce qu'on avait confectionné 10 000 masques. pour jox ko ko. Euh, non pas les 10 000 masques. Mhm. jël une partie jox ko ko. Mhm. yeneen ñu ngi distribuer ko. Mhm. mais juste de manière symbolique wane ne comme. président de la République Mbass bu ñëwee dafa def appel mhm. national à la solidarité mhm. ñun si si logique boobu lañ nekkoon parce mhm. que comme ni may wax rek ñun on est des citoyens moi je suis je me considère pas comme un politicien je suis je dis toujours que je suis un citoyen actif c'est-à-dire la citoyenneté qui qui en moi laa bëgg a yee yee ko si nit ñi moom moo tax lépp li nga xamante ne day soxal suma gox day soxal suma réew duma si xaar kenn dama si jóg def si cadre un lot de masques pour mu distribuer ko c'est-à-dire de mmh. manière une manière de contribuer mmh. mais bon malheureusement bon peut moom neneen la ko gisee dafa gis ne politique la mmh. te peut-être ak comportement politique ñoom bi ñuy am yàlla xam ne ñun amuñu ko ñun Sénégal moo ñor Parcelles Assainies gën ñu ñor ci lépp quoi donc su ma la déggee mooy maire bi daal dafa bañoon nga jàppale ko <laughs> waa xam naa sûrement bañul ma jàppale ko sax mais sûrement danaan non comme c'est de la politique et tout alors que c'est lui qui fait de la politique moi je suis mhm. hmm. euh, ñu wax ci beneen ponk parce que inondation coronavirus ñoo fi nekk euh, jamono ji wala semaine bi ñu génn taw bu metti taw na ko ci euh, diwaanu Ndakaaru ak Sénégal wërngal këpp li ni mel nag def ay ñombe ci biir Sénégal waaye dañuy taxawandi ci Parcelles Assainies bi ñu nekk mhm. alors Parcelles Assainies gis nañ ni assainissement waaye wala laata ñuy dugg ci inondation dañ lay faral di dégg nga ne Parcelles asseni waaye amul assainissement. Mhm. est-ce que mun nga ñu expliquer lu gën a leer ci li nga xam ne moo jëm ci ñàkk assainissement bi ngay wax. effectivement ce sera avec plaisir parce que je suis là comme ni ma koy waxee pour faire le plaidoyer des Parcelles Assainies. <laughs> man fu ma mënti toog ci Sénégal muy rajo muy télé Parcelles Assainies laa njëkk ko wax da ko wax leneen d'accord. <laughs> le problème de l' assainissement euh, des euh, de l' assainissement au dafa nekk loo xamante ne dafa yàgg. effectivement contrairement à Kër Massar ak yeneen dëkk yi ñun Parcelles Assainies am na assainissement. Mhm. ak réseau. contrairement à Kër Massar bi nga xamante ne nit ñi dañoo dëkk. ñu mhm. doog a commencé di installer le réseau d' assainissement. Mhm. maintenant nous notre problème c' différent du problème des gens de Kër Massar ñun suñu problème moom mooy techniquement. les stations d'épuration ak de pompage ñoom ñoo amul capacité ak doole. loolu li koy expliquer dafay xaw a bëri. mooy mooy bi ñuy doog a ñëw bi ñuy defar Parcelles Assainies mhm. def réseau bi dañ ko defoon pour une certaine population. Mhm. ak explosion démographique bi c'est-à-dire euh, les populations augmentent de euh, d'après les statistiques de cinq pour cent par an. Ouais. Parcelles léegi on est à peu près cent mille habitants. Mhm. te loolu statistiques yooyu depuis 2015 la. 2015 mhm. ba léegi sûrement egg nañ lu ëpp loolu. Mhm. juste pour wax ne kër yi léegi dañu koy def construction en hauteur. Mhm. kër bu nga xamante ne dañ doon estimer ne dina am 5 personnes léegi da ngay gis 15 à 20 personnes. ce qui fait que la consommation en eau day gën a bëri. ce qui fait que le débit d'eau bi nga xamante day accéder ci station d'épuration bi ak station de pompage bi ak ci réseau réseau d'assainissement bi ak ak réseau euh, eau pluviale bi. dafay xam ne day gën a bëri. c'est-à-dire techniquement ce qui était conçu pour. évacuer euh, les eaux usées. ak mhm. ak ak yeneen façon ndox yi. Mhm. Mhm. il vingt ans trente ans. Euh, capacité bi amatu ko. ce qui fait après il faut que ñu réadapter c'est-à-dire. Euh, en science noonu la. dangay defar benn mbir. nga gis ne contexte bi changé na. Euh, population bi yokku na. tuyaux yi peut dafay ndaw ak yenn capacité yi techniquement yi pompe station yi amoon il faut que ñu changer loolu andi technologie bu bees bi nga xamante ne na mhm. ko mën a évacuer mhm. mais en réalité Parcelles Assainies am na réseau d'assainissement mhm. mais des bu tawee euh, la nga moo jël ci ndox mi euh, ni dafa am ndox. absolument absolument loolu li koy expliquer bëri na parce que dafa am ay ay bas c'est-à-dire c'est parce que boo xoolee parcelle bu njëkk bopp ñi nga xamante fekkee nañ mi koy defar ak ñu ou ñi ñi lire l'histoire mhm. Parcelles Assainies ay ay dune ay dune de sable woon ay montagne balaa nga doon accès si géej da ngay yëg ay montagne mhm. ce qui fait que buñ ko doon defar dañuy war a terrasser ba mu niveler mhm. am nivellement bu baax léegi nag bu ko defee réseau réseau réseau réseau d'évacuation yi bu ñuy dem dañu am pente boo xamante ne bu ñu dem géej du jafe bu nekkee le le contraire moo am cest à bi dafa am pente bu nga xamante ne euh, baaxul mhm. il faut nga may ko doole mhm. ak ay station yi nga xamante ne day yokkal doole pression bi mu mun ko évacuer juste pour préciser que les les les les eaux, les eaux use mhm. niñ koy traité mooy bu génnee si si toilette yeeg yooyu day dem si si réseau bi réseau bi jël ko transféré ko Cambérène mm. cambrin traité ko dindi les les les trucs solides tout mm-hmm. jël ndox bi nga xamante ne moom mooy ndox doo ko transféré mm-hmm. mu dem vers vers la plage tout à mm-hmm. l'égout la Parcelles Assainies am d'accord donc ce qui fait que euh, le réseau est la mais malheureusement euh, techniquement mm. les, la capacité reste à voir eaux pluviales bi ñu ñëwee nag parce que eau pluviale bi mooy ndoxu taw bi la. ndoxu taw yi. Mhm. aussi bu ñëwee fois par exemple dem dem naa visite unité 15. dinañ ci ñëw. Mhm. absolument mhm. donc bu ñu demee ba foofu. bu ndaw yi ndox yi ñëwatee ndoxu eau pluviale bi. dajaloo dajaloo si pompe bi. pompe bi du amati doole bi nga xamante ne dina am capacité am pression boo xam ne dina mën a. refouler vers la plage. la mer. ce qui fait que euh, ñëw tëj réseau bi. muy refouler si këru këru nit ñi quoi. léegi tey lan mooy urgence bi. urgence bi mooy li président de la république def urgence. Mm-hmm. on parle de Kër Massar c'est pire là baax mm-hmm. ñun waa Parcelles Assainies ñu ngi sant yàlla peut-être y a pas eu de cas de mort ainsi de suite. bien sûr mais de hier j'ai vu des familles yi nga xamante ne. Mm-hmm. ils étaient la limite traumatisés. bien sûr traumatisés parce que euh, saa yu xiinee. du ñu nelaw. ñoo xamante ne seen matériel yàqu na li ñu seen biens yi nga xamante ne amoon nañ ko eh, depuis des années. yàqu na c'est triste. ñun euh, on a fait une action sociale mm-hmm. on est parti se rapprocher d'eux pour compatir mm-hmm. pour montrer qu'on a de l'empathie envers eux mm-hmm. par notre présence physique d'abord soulager leen mais partager ak ñoom mhm. sunu as néew bi nga xam ne moom la ñu am mhm. en leur donnant des kits alimentaires okay. ça veut pas dire qu'on est plus riche hein mhm. ça veut pas dire ça veut dire qu'on veut montrer euh, pour wax rek ne euh, metti na trop mais l'urgence mooy ñu xoolaat les points ba ñu defar ko defar fa ba indi de technologies nouvelles yi nga xamante ne nañ am doole boo xamante ne na mën a permettre ñu évacuer parce que ñun Parcelles Assainies dañu am tout à l'égout dañu am loo xamante ne alma di amu ko Kër saar amu ko mm. d'accord deuxième bi mooy euh, la Géroute mm-hmm. tali yi ñu defar Parcelles Assainies yëpp amul ay grille avaloir moom laa doon expliquer mm-hmm. parce que grille avaloir bi day tax eaux pluviales bi ñu ñëwee mm-hmm. day day mën a jël tuuti si ndox yooyu stocké ko foofu ce qui fait que les débits d'eau bi nga xamante ne mooy accéder en même temps si station de pompage bi mhm. day wàññeeku bu ko defee station bi dina mën a liggéey liggéeyam mhm. loolu moo dal waa unité 7 parce que dafa am station bu nekk foofu mhm. mais malheureusement comme y pas de grille avaloir te tali case bi ba Cambérène dafa nekk en hauteur ndox bi nga xamante ne mooy ñëw foofu yëpp day wàcc si koñ bi bu ko defee euh, yi mu wi Euh, ba tax na rek mu ne képp koo xam ne nag élu nga wala nga am taxawaay nga dem jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi gis nañ la ci terrain bi ngay eh, joxe ndimbal ci wàll wi ni mel mel na ni xaaroo appelu njiitu réew mi. Mm-hmm. non en fait euh, ñun euh, dans notre logique euh, duñu xaar lépp ci état parce qu'on est conscient que l'état ne peut pas tout faire. Mm. le développement passe inéluctablement par la solidarité et l'implication. d'accord de tout mm-hmm. un chacun mm-hmm. loolu moo tax euh, bi ñu gisee ne y a des soucis on a on n'a pas attendu que le chef de l'État mm-hmm. euh, par exemple décaisse un budget pour euh, def benn plan de résilience parce que les familles sont vraiment fatiguées amuñu fu ñu tëdd maintenant moi j'avais lancé un appel au père je lui ai dit la responsabilité voudrait que dès que nga constater que y des familles sinistrées amuñu matelas amuñu fu ñu tëdd amuñu seen denrée yi lekk euh, kii na va sortir dans le budget des Parcelles Assainies un montant mhm. nga dimbale leen en attendant def na ko defagu ko mhm. defagu ko mhm. d'accord donc laase ko fii solo leen ñu askan yëpp dégg ko parce que itam <laughs> euh, ñu ci loru bari nañ te ñu ngi xaar ndimbal itam waaw d'accord donc euh, loolu lañ doon xaar si moom mais malheureusement defu ko. defu ko bon après peut-être que dina ko def si kanam. Hmm. mais bu ñu xaar ne euh, comment il s'appelle le président de la république def ko parce que procédure état. Hmm. day xaw a yéex. Hmm. mais famille yooyu fu ñuy fanaan. amuñu mat la amuñu amuñu lu ñuy dundee. te euh, avant que Macky Sall di nekk seen président Moussa Sy moo nekk seen maire. c'est-à-dire la une mairie c'est un démembrement de l'état bi nga xamante ne. day ñëw di représenter le gouvernement. à travers peut-être comment il s'appelle domaine de compétence leen transféré mhm. d' accord mhm. bu ko defee nag maire bi il faut muy jël ses responsabilités xam ne dañ ko doté d'un budget mhm. pour qu'il prenne des décisions de manière prioritaire orienter le budget par rapport au contexte ñu sous préfet validé ko population bi kontaan ko yaa ngi wàcc ci terrain bi di saytu ñi nga xam ne ñoom ñoo lorule ci mbënn mi constat bi nga def fan ak fan la yan nga jàpp ni <laughs> famille yi euh, xaw nañ takku itam ci diwaanu Parcelles Assainies absolument absolument constat bi lan nga gis bëri nañ waaw population yi sonn nañ trop. man mii nga xamante ne parce que Assainies laa dëkk sax vraiment bu may génn man j'ai j'ai peur je suis triste. wallaay dama gis ay famille yoo xamante ne seen bagage yëpp a yàqu. matelas bu ñu tëdd amuñu ko. ñi xamante ne ci kaw terrasse la ñuy fanaan. loolu il faut nga déplacer wu pour gis ko xool ko. te cette proximité là je pense que ñun ñi nga xamante ne ñooy yeewoo Parcelles Assainies dëkk fa màggee fa juddoo fa di xuus ak ñoom ci ndox bi ñun ñoo ko mën a def mhm. d'accord je parle pas seulement du maire oui. je de tous les hommes politiques yi nga xamante ne dañu bëgg a def parcelle base mhm. pour mën a accéder à des stations parcelle am na ay am na ay ministre mënuma ko waxee noonu mbay Ndiaye Amadou Ba mhm. ay député Aline Badara juuf ak ñeneen ñi nga xam ni xawma leen wala ràññeewuma leen mais am nañ fa ay nombay tànk donc est-ce que jàpp nga ni ñoom wàcc nañ ci base bi jàppale askan wi bon en tout cas euh, man gisaguma ko mais en tout cas c'est ce que les populations attendent mm-hmm. parce que bu fekkee yow tu revendiques ton appartenance des aux Parcelles Assainies booy dem Parcelles Assainies ngay ngay suñu électorat ngay demee moo la bëggal may doole. Mhm. bu ñu nekkee situation yu mel nii dañu laaj gis ces personalité la ñu ñëw nekk au chevet des population mhm. mais malheureusement bu ñu nekkee si tolof tolof duñ leen gis bu ñu nekkee daal si jàmm wala élection jege si. si mhm. la ñuy ñëw def leur show jaar fii par ci par là mais kër ci par là après nax population yi. mais je pense que la population est en train de se réveiller. je dis quelque bi ma gis. fi mu toll nii kenn mënatul nax kenn. xam nañ ñan ñooy seen véritable doom xam nañ ñan ñoo ñoo dëkk ci gox bi xam nañ ñan la bu gudd lu mu guddi guddi dinañ wàcc ci terrain bi. Hmm. ñëw partager ñoom seen i seen i souffrance ak seen i douleur. Hmm. mais professeur di lancer un appel solennel hmm. à nos mamans. parce que ndaw yi yeewu nañ ils comprennent exactement les enjeux. Euh, les enjeux locaux. ah ak intérêt yi koy gouverner. bu ñu nangooti nit ñi jóge fële. élection yi jege si ñu ñëw jox ñu cinq mille dix mille xartum par ci nax ñu bu demee duñ leen gisati. je pense que c'est important. ñun seen doom lañ bu ñuy xeex pour Parcelles Assainies nekk la première commune Sénégal yéen lañ koy xeexal. parce mais bu ñuy perdre temps di consacré pour xeexal Parcelles Assainies. Mhm. c'est parce que dañu gëm ne dëkk bi. war na mën a avancer. Mhm. daf ñuy may rek ñu daal ubbi ligne bi 88 la 628. 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 mbokk yi itam yéen itam mën ngeen dugg bokk ci émission bi waaye ba tey waxtaan bi dafay wéy alors ñu ngi euh, ruumanaat ni goo Faye lépp li muy def ci action yi politique la te lenn ko soxal muy euh, mairie parcelle Assainies yi euh, est-ce que da ngay dëggal wax jooju. Parcelles Assainies moo ma ñoom. 2012 euh, la ñu am yëg-yëg ci Parcelles Assainies comprendre que ne ñi nga xamante ne ñoom lañ yaakaar mhm. gëmuñu ñu en réalité seen bopp lañ gëm ils font de la politique politicienne mhm. politique politicienne bu ko déggee nag mooy ñëw nax askan bi taxaw fii par ci par la jël alalu askan bi à travers le budget soit local soit le budget national ñëw jëndal leen ceeb par ci par la mhm. nax leen dig le ciel et la terre alors que gëmoo si dara. li nga gëm mooy egg sa station. ñu gëm ne ñun ñi nga xamante ne ñoo màggee Parcelles Assainies yi. Hmm. jàngee Sénégal on est redevable à notre pays mais dañ koy commencer par suñu commune. Hmm. commencer par suñu commune nag mooy def éveil des consciences l'esprit citoyen ak patriotisme bu nga xamante bu ko. ndaw yi approprié woo dañuy dem toog ci instance de décision parce que on peut pas changer quelque chose sans pour autant nga bokk ci li nga xamante ne fa la jëlee les décisions hmm. et au niveau local l'instance de décision bi nga xamante ne moom mooy la plus légitime hmm. moom mooy le conseil municipal hmm. raison pour laquelle en 2014 on a été candidat aux élections locales bien nag mais on était satisfait on n'a pas été ridicule parce que ay grands dinosaures lañ ko sekkaloon ay mm-hmm. grandes coalitions ñun on était parti seul mm-hmm. c'était pour voir exactement comme ni ma koy waxee rek si on avait le leadership nécessaire pour avoir un discours fédérateur pour éveiller des consciences pour créer le déclic chez la jeunesse mm-hmm. je pense que loolu la ñu réussir de à maintenant on est dans notre logique on est dans notre constance et je pense que les populations de Parcelles Assainies sont en train de comprendre yow comme keneen comme man comme keneen mhm. ñu nekk ressources humaines de qualité mhm. comme ça on pourra prendre des décisions meilleures pour l'intérêt supérieur de notre commune mhm. suñu vision mooy teg fa maire bu nga xamante ni il aura de courage face à ces genres de situation là d'aller faire le plaidoyer des Parcelles Assainies en s'adressant directement au président de la République lui dire que ñu ngi dégg milliards yi mais dégguñu ci Parcelles Assainies yi conseil des ministres yi passé dégg nañ ñu naan non plan d'urgence on est en train de de de refaire le réseau d'assainissement pour un milliard et un milliard huit cent un milliard sept cent avec le royaume espagnol. Mm-hmm. d'accord mm -hmm. mais attends Parcelles fan lañ bokk ci Sénégal lañ bokk. Mm-hmm. ñun on a un besoin urgent. Mm-hmm. moom mooy assainissement au-delà de waxuma sax yeneen yi. comme yeneen besoins yi ñoom yuuxul nañ ko santé éducation sport defaluñu dara. depuis que l'avènement de de de de Macky Sall. mais nag il faut que ñun on ait le courage de prendre notre destin en ñu wane leen Parcelles Assainies aussi. nekkul ñoo xam ne dañuy toog di subir les décision des des des, des mmh. te décision gouvernants yooyu yëpp ñun Parcelles Assainies bénéficié wuñu ci. en tout cas en toute responsabilité damay wax ak ñi nga xamante ne ñoo nekk si euh, le régime. Mmh. c'est-à-dire les gens de l'APR ou bien de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Mmh. quand on dit ce genre de choses là c'est pas parce que dañu bañ nit wala dañoo jéppi. man damay mettre euh, la la primeur si notre appartenance des Parcelles Assainies. c'est-à-dire Parcelles la ñu dëkk ba pare doo ko dëkk feneen. président Macky Sall suñu président la ñun ñëpp. bu nekkee deful Parcelles Assainies dara. mais pourquoi essayer de défendre le diable. amul kenn koo xamante ne mën na si toog ne président de la république def na lii Parcelles Assainies entre nous. yow gisoo jàppoo ci dara yow. Euh, jàpp si li mu def tey am jàppoo ni président am na lu mu def parcelle. non tegoo ci loxo. gisuma ko wax xam nga balaa nga siy teg loxo da nga koy gis doo ko dox teg si loxo. Mhm. c'est-à-dire dans le domaine du sport. depuis 2009. Mhm. sunu stade bi mu ngi nii en construction. parce que Assainies bokk mhm. ñu ñoo nekk commune bi nga xamante ne amuñu stade. Mhm. ci Dakar. Mhm. c'est anormal. te ñun ñu ëpp population électorale. c'est-à-dire bàyyiwuñu xel si loolu parce que Parcelles Assainies jeunesse bi dañuy toog rek croiser les bras di tàccu gars yi ñëw nax leen ñu dem. centre de santé lañ am maam Abdou amul rajo amul scanner des gens comme moi ak ñeneen ñoo dem wuti ay équipement man ma wuti lal keneen wuti ay ay ambulance keneen wuti leneen leneen ñu ko. d'accord dans le domaine de l'environnement rien que daal. bu ñu demee si affaire u euh, comment il s'appelle euh, assainissement c'est encore pire est-ce que tu comprends mm-hmm. man je me pose la question de savoir est-ce que ñun euh, nit ñi xam nañ si Sénégal lañ bokk bu ñuy dégg ay waxu milliards on parle de 750 millions plan décennal de lutte contre les inondations mm-hmm. bon ah en tout cas gisuñu ko Parcelles Assainies d'accord bi ñuy wax gis naa ci euh, conseil des ministres bu mujj bi euh, encore une fois le président de la république génne dix milliards ne trois milliards dañ koy dimbale. sinistre yi loolu ci. sinistre yi. Mhm. foofu nag laay interpeller le maire encore une fois. Mhm. xaalis boobu buñ ko politiser. c'est-à-dire nañ ko jox ñi nga xamante ne dañoo lañ identifier ci zone yi nga xamante ay zone inondée lañ. ñu mhm. sinistré parce que malheureusement. looy wax ci wàllum politiser bi. politiser mooy jël alal boobu parce que tey. bu nekkee euh, dañ ko nar a dugal ci gox bi c'est le sous-préfet avec le maire ñooy identifier nit ñi à travers les chefs de quartier ainsi de suite mhm. d'accord ñoom ñooy identifier def seen i liste après ñu dem xool noonu ñuy jëlee seen seen numéro am benn base bi nga xamante ne ñoom lañu leen di envoyé xaalis ou bien ñu jox leen ko. Mhm. malheureusement nos zome politique bu nekkee loolu dafa jot dañuy jël seen i militants di leen jox xaalis c'est ce qui s'est passé avec euh, les les trucs les bourses sécurité sociale. Mhm. d'accord. ñu jël seen i militants nga dugg benn kër fekk fa 4 5 personnes yu am ay bourse de sécurité sociale alors que ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko soxla dëgg dëgg dëgg peut-être politique ñu ils s'intéressent pas à la politique mais ñoom la war a identifier jox leen loolu. Mhm. c'est-à-dire après à l'origine les politiques son dañuy am dañuy am euh, euh, normalement vision bu baax ci politique yi mais la le suivi ak évaluation bi ñu si war a def dañ ko si def ba les hommes politiques yàq euh, la vision ou bien l'objectif initial mm-hmm. donc le sous-préfet bi nga xamante ne ku bees la aussi dañ si profiter lancer ko un appel ne ko qu'il ne fasse pas confiance au maire parce que day jël à xaalis bi jox ko ay militants d' accord on a rien contre ces militants y' a mhm. bu nekkee xaar doon nañ jox militants yi nañ jox militants yëpp. Mhm. Parcelles Assainies nañ ko jox ñëpp. mais nañ identifier en priorité ñi nga xamante ñoom ñoo gën a ñoo gën a ñu dimbali leen te yàlla tax parce nit ñi amuñu fu ñu tëdd amuñu lu ñu lekk. Mhm. ñu wéyal ci waxtaan bi mais gis nañ la itam. kon mi ngi mel ni projet mairie bi ba tey mi ngi enclenché wu yaa ngi ci dynamique boobu. <laughs> ah oui il faut mu loolu c' une vision. Mm -hmm. c' est pas un projet c' est au delà de un projet c' une vision. xam mm nga mhm. vision nga njëkk a am après nga matérialiser ko par un projet. Mm -hmm. à dire dañu am vision si Parcelles Assainies on rêve d' un Parcelles bi nga xamante ne day nekk la première commune du Sénégal. Mhm. on rêve d' un Parcelles bi nga xamante ne infrastructure euh, les infrastructures sociales primaires yëpp dina ko am muy. Mhm. école dem lycée ah am hôpital am stade yooyu yëpp yi may wax ni amu fa mhm. am centre socioculturel c'est-à-dire Parcelles Assainies mon frère amul dara léegi nag bu nekkee ñi fi nekk amuñu vision boobu amuñu gëm-gëm boobu yi amuñu yéene boobu si askan bi ñun am nañu yéene bi mhm. moom moo tax nag on veut s'entourer des personnes yi nga xamante ne ils la même vision que ñun mhm. am nañ benn benn benn patriotisme ak gëm-gëm. pour mhm. defar gox bi. Mhm. bu ñu defee loolu danañ am un consensus citoyen une liste citoyenne. Mhm. ñu dem jëlee li nga xamante ne baaxul ci mairie bi ñu ñu ñu dindi ko fa. li fa baax nag ñu maintenir ko. parce que j'avoue aussi que dans l'équipe municipale y a des yi nga xamante ne ñu ngi góorgóorlu. y a des bam y a des femmes yi nga xamante ne ñu ngi yor seen i association di góorgóorlu di def développement. y a des jeunes personnes yi nga xamante ne bien que si Moussa si lañ ne mhm. mais je les je les admire mhm. gis naa ne te am nañ am vision am nañ yéene peut c'est le manager général <laughs> le maire moo leen mënul coacher moo leen mënul manager mhm. mais même ñun bu accéder au pouvoir on va pas venir pour enlever tout ça on va prendre le bon de l'équipe municipale ñu maintenir ko euh, après ce qui n'a pas bon ñu jëm ko améliorer damay dégg ñu ne euh, Go Faye dafa limité ci diggante Parcelles Assainies unité 11 unité 10 unité 7 yeneen unité yi ñoom xanaa nekkuñu parcelle. non non non non Gofay ne ne ne ne se limite pas à ça c'est-à-dire on a notre stratégie xam nga ñun on est des technocrates. on n'a pas le temps 24 heures sur 24 à faire de la politique. Mhm. c'est différent moi euh, depuis deux ans trois ans am na yoo xamante ne néew ma woon j'étais dans la sous-région dans le cadre professionnel. Mhm. c'est-à-dire moi je pas me comporter comme quelqu'un qui passe toute sa journée ce qui fait que quelquefois sama présence sur terrain bi yooyu gars yi ni ko fustigé gisuñu waa ji gisuñu waa ji mais il faut qu'ils comprennent que moi je suis professionnel je dois nourrir ma famille je dois aider mes parents mm-hmm. d'accord donc pour loolu il faut ma liggéey ba fi may toll nii je suis dans un autre domaine mm-hmm. mais damay xëy liggéey ba pare après les actions politiques ak samay gis-gis nag bu ma ma jëm ko aménager suma emploi du temps mm-hmm. mais euh, comme ni may wax rek quoi euh, sunu objectif moom mooy la longue marche vers la mairie L2M c'est notre slogan te euh, on l'a enclenché en, en, deux mille Mm je pense que ça va aboutir en 2021. Mm -hmm. avec l'appui de tous les parcellois. Mhm. sans obédience c'est-à-dire man ñun on n'a pas de limite kii fii la nekk kii fee la nekk. kii justement ci loolu laa doon ñëw sax est-ce que tey euh, Go Faye Parcelles Assainies ak dayo bi mu am ñu ngi fay tudd Amadou Ba Mbaye Ndiaye même bu fekkee ne nekkoon na fi maire Parcelles Assainies Moussa Sy boobu ñuy wax ak ñeneen ak ñeneen mel ni ni ay kàngam ñu ngi fa Go Faye ak ñoom mel na ni euh, combat bi du yomb ah. no combat bi dina yomb dina yomb parce que Go Faye la nit ñi di gis mbënd bi bu mu amee man lañ gis ma wàcc terrain bi man lañ gis ma jël sama alal di leen ko jox man lañ gis ma ñëw ku ànd ak ñoom dem ci famille yi partage ak ñoom gis nga nit ñi dofuñu te il faut que les hommes politiques classiques là les politiciens ñu comprendre que ne on peut tromper le peuple une fois deux fois mais on peut pas tromper le peuple tout le nit ñi commencé nañu yeewu. man nag ma cible c'est la jeunesse. am na ñu ma naan non il faut nga boole seen maire yi mais malheureusement maire yeeg paa yi ils comprennent pas les enjeux du monde actuel ak intérêt yi leen gouverner man ma stratégie c'est de de parler avec les jeunes. de les sensibiliser parce que ndaw yooyu ñoom ñooy avenir Sénégal ndaw yooyu fii 10 ans 15 ans ñoom ñooy nekk aussi instance décision yi même si je suis pas maire si je suis pas député je suis pas ministre c'est pas méchant c'est pas pire mm-hmm. hmm? d'accord affaire de pouvoir affaire de yàlla la mm-hmm. mais en tout cas bëgg naa bis bu may génnee àdduna ñu xam ne ku bëggoon Parcelles Assainies dem na mm-hmm. nga xamante loolu sax au moins naa bàyyi image bu baax ci noonu bon yaa ngi defar say stratégie di ñi nga xool war a xool ñi nga war a àndal ci li nga xam ni nag moom moo jëm ci conquête boobu nga wax ci diggante mairie bi ndax jàmmaar ak ñooñu faw nga am benn assise bu dëgër ci ginnaaw nga mën a jàkkaarloog ñooñu absolument ñi ngay wax noonu du ñu ay adversaire <laughs> man jàppewu ma Amadou Ba comme un adversaire jàppewu ma Mbaye Ndiaye comme un adversaire mhm. man jàpp naa ne peut-être euh, ñoom seen gis-gis leneen la quoi mais du Parcelles Assainies en tout cas mhm. si seen comportement man en tout cas li may comporté woo wane naa ne am na yëg-yëg ak gëm-gëm si biir Parcelles Assainies mhm. maintenant ñoom bu fekkee gën gëm Parcelles Assainies ñor lañ dañu war a soutenir ñun si suñu élan parce que xam nañ ne am nañ les compétences am nañ l'ambition am nañ euh, le management et le CV bi nga xamante ne permettre nañu diriger au-delà des Parcelles Assainies mhm. mais dañu bëgg a circonscrire comme on est jeune on n'est pas pressé ñu commencer notre notre notre notre notre démarche mhm. dans, au niveau local pour ne pas nous éparpiller mhm. mais le mouvement Réaction ambitionne au-delà des Parcelles Assainies et sunu vision dépasse de loin les frontières des Parcelles Assainies mel ni 88 8 la 628 84 84 wala 628 85 85 wala 88 628 86 86 mbokk yi itam mën ngeen dugg bokk ci waxtaan bi ba tey ñu daal di wéyal rek li nga xam ne moom moo jëm ci waxtaan bi mais dañuy taxawoon di tuuti wax ci mairie bu Parcelles Assainies bu ne budget ñu ne budget bu gën a rëy ci diwaanu ndakaaru à part ville de Dakar ñoom la tey Go Faye moom ban regard la am ci gestion maire Moussa Sy parce Assainies <laughs> ok d' accord en fait effectivement donc euh, Parcelles Assainies bokk na si commune yi nga xamante ne seen budget euh, gën na rëy gën accord mm. maintenant la question la de budget c' est quelque chose à relativiser hein, parce que budget du xaalis bi nga xamante da ngay ñëw rek fekk ko si caisse bi di di dépenser d' accord mm. budget dañ prévision la après c' est par par là ainsi de suite faire ay publicité ay impôts ay taxes ainsi de suite ainsi de suite quoi mm. bu ñu boolee lépp ñu ne ok la richesse de la commune si année bi lii la war a doon après nag yeneen partenariat par-ci par-là des dons ainsi de planifier daa mhm. ñu boole lépp doo ko xool exactement euh, exactement le le ñaata la la la ñu mën a euh, collecter en termes de ressources mhm. bu ko defee nag ñu ñu ñu orienté ko si ay dépenses mhm. d'accord dépenses yi nga xamante c'est dépenses prioritaires maintenant éducation santé peut-être que aujourd'hui le sport sax est relégué au second rang mais urbanisation cadre de vie loolu c'est une priorité mhm. parce que covid 19 dafa ñëw réorienter les priorités mhm. aujourd'hui dëkk mënul dem te sa système sanitaire développé dëkk mënul dem te sa cadre de vie euh, sa sa urbanisation demuñu si mhm. d'accord donc euh, ku vision si loolu ngay orienter sa budget mais bon comme suñu budget bëriwul c'est deux milliards trois cent deux milliards quatre cent à peu près donc je pense que l'idée mooy de mener une gestion inclusive mhm. xam nga ku ñu fal maire da ngay foog ne yow yaa mën lépp ci mhm. omniscient omniprésent omnipotent mhm. alors ko jël yàlla rek moom moo omniprésent omniscient omnipotent bu ñu la falee ça pas dit que tu es plus intelligent que tout le monde bu ñu la falee dangay xam ne yàlla moo la fa teg mais mën na am sax si ñi la fal ñoo la ëppi ay compétence dañ koy la koy nangul mais bu ko defee nag bu nekkee am nga xel da ngay yaatal ok yaatal ñu jël kooku si ligne bi salaamaaleykum waaleykum ah, bi ñu ngi lay euh, ziar tur bi ak foo ñuy woowee. tur bi ak foo ñuy woowee. Euh, bon maa ngi di woowee Parcelles Assainies. Mhm. bisimilah bisimilah. allo waaw yow la ñuy déglu. voilà maa ngi suivre émission bi depuis Parcelles Assainies. jërëjëf bon xam naa dama koy leb. Mhm. mais li ma bëggoon wax rek mooy d' ci action yi nga xamante ni moom la jot a réalisé ci Parcelles Assainies hmm. ak li nga xamante ni noonu noonu lay défendre Parcelles Assainies hmm. parce que euh, gis ne depuis deux ou trois ans boo xoolee situation politique bi Parcelles Assainies hmm. moom lañ fi le seul boo xamante vraiment mu ngi mu ngi mu ngi plateau yi bu demee ci feneen parce que ki nga xamante ni mooy actuel maire ku ne xam ne dafa relié camp présidentiel bi. moo tax suñu toll yenn problème yi nga xamante Parcelles Assainies da koy am. maanaam kenn koo xamante ni mooy porte li <laughs> euh, euh, nga xamante ni maanaam gisuñu kenn koo xamante ni au moins réclamation yi nga xam parce que Parcelles def. gis nañ kenn koy porte. Mhm. te fu mu toll nii góob ay kese moom lañu gis. Mhm. yooyu ci moom lañu rabattre vraiment. Mhm. ak jeunes pour que seen message ñu mën ko jàllale. mu ngi souffrir. Parcelles Assainies mu ngi souffrir. Mhm. Mhm. te gisuñu fi benn acteur politique boo xamante ni vraiment. Mhm. kenn ah du kenn. du Amadou Ba du Mbaye Ndiaye du le maire Moussa du kenn du Bada du kenn. xam nga ne sa parcelle amul député amul ministre amul dara. te loolu nag il va falloir que ñun Parcelles Assainies ñu ndaw ñi. faire confiance à des comme Go Faye. ñi nga xamante ni vraiment. li ñu am as néew koy bokk ak tey fépp fu ñu toog dinañu xeexal Parcelles Assainies te ñun Parcelles Assainies fu mu toll nii loolu lañ soxla dinañ mhm. bàyyi bu élection yi ñëwaatee ñu ñëwaat naxaan yi ñu jël saay xëpp ko ci dëkk bi mhm. ñu jëlaat suñu carte jox leen mhm. élection yi passé ñuy commencé di souffrir franchement man euh, yooyu moom dafa métti trop te duñ def lu daal félicité ko góo fay te di ko encouragé quoi merci <laughs> ñuy wéyal waxtaan bi kon euh, su ma la déggee rek mooy parcelle euh, war nañ fa def lu bari daal Parcelles Assainies war nañ fa def lu bëri. Mhm. Euh, j'ai l'habitude de le dire euh, keroog ma demee benn émission te loolu laa ma ne Parcelles Assainies c'est la seule commune a plébiscité à la limite le président de la République en 2012. Mhm. de vote yi nga xam moo nekk Parcelles Assainies sauf HLM Grand Médine. Mhm. Macky Sall la gagné premier tour. maintenant. rendre leen monnaie bi quoi nga. Macky Sall redevable aux Parcelles Assainies parce que kii gagne Parcelles Assainies gagne Parcelles Assainies gagne ki gagne Dakar gagne le Sénégal. maintenant bu ñu fàttee nag y' a pas de souci. Mhm. nous on est des des parcellois et on est fiers de le revendiquer. Mhm. mais li ñu soxla si ñoom mooy ñu defaral ñu suñu dëkk bi. ñu démb malheureusement eh, eh, ndeysaan bu ma gisee population yi sonn lool da ngay ñëw sax di may di kit nit ceeb mu ne gis nga waa nguur gaa ngi nii di mayee ceeb soxlawuñu ceeb dañuy jaawale nguur gi. parce que s'attendent à ce que nguur gi ñëw may ay ceeb ak ay kit alimentaire pour wan rek ne nit ñi seen désolation ak mépris bi ñuy am. Mhm. à l'égard de ces gens-là parce que gouverner c'est prévoir man ça me fait mal quand je vois des gens ñu naan non affaire bi euh, phénomène international la inondation am na fépp mais c'est faux c'est archi faux Guinée mi ngi nii li muy taw di fa taw te inondation amu fa d'accord hmm. na yeneen dëkk yoo xamante ne inondation amu fa pourquoi nga jël référence ci dëkk yi nga xamante ne dañoo inondé ñoon seen réseau d'assainissement baaxul ñoom duñu ay référence boo jël référence da ngay jël référence ñi nga xamante ne euh, def nañ une gestion axée sur des résultats. Hmm. c'est-à-dire ils ont délivré ils ont anticipé si cadre de vie bi ci urbanisation bi. Mhm. réseau divers bi. Mhm. d'accord mhm. parce que dañu nekk ci monde bi nga xamante ne les nouvelles villes yi ñuy def yëpp dañu war a anticiper ci loolu. c'est-à-dire balaa ñuy jëlati nit ñi di leen yóbbu fenn ñuy dëkk. l'État est là pour ça même boo gisee ay nit ñoo xam ne dañoo dem ci ay zones inondables. dëkk fa mais da nga leen di yëkkati. ou bien sunu maire yi nga xam ne ñoo joxe permis d'occuper délibération yi ainsi de suite. mais ñooñu la. mais tôt ou tard taw bi bu ñëwaatee ndox du bàyyi yoonam. Mhm. par exemple boo xoolee Kër Massar fi ñu dëkk noonu yëpp dex la woon. bien parce que dex bi jaar si ñaay. Mhm. romb Parcelles Assainies nii moom moo continuer ba Kër Massar. c'est-à-dire c'est parce que dañu toog benn période bi nga xamante ne. Euh, les saisons pluvieuses pluvieuses n'étaient pas aussi intenses. Mhm. moom moo taxoon ñu mënoon dëkk foofu. mais bu fekkee dañu nekk si période bi nga xamante ne léegi nekk chaque cent ans day am. Euh, les plus centennales autant pour moi. Mhm. chaque cent day am période yi nga xamante ne am benn cinq ans six ans. taw yi day gën a yokk si période boobu lañ nekk. c'est-à-dire il faut qu'on s'apprête mhm. si si année yi ñu jëm. taw bi day gën a bëri. Mhm. te donc le problème il ay jumtuwaay daal. jumtuwaay parce que sinon l'année prochaine aussi. c'est les mêmes choses qui vont se répéter. su ma la nee lan mooy bilan Moussa Sy lan nga may tontu. bon boo ma nee bilan Moussa Sy je zéro def fa dara. waaw ah, bilan 2014 ba tey amul dara loo mënul laal mënu wa daal dara parce que li fa nga xamante ne c'est palpable moom mooy les les les pavage te loolu projet Promoville la hmm. parce que seen Promoville li ñu fa jot a def c'est-à-dire kooku même baa yow boo fa toogoon sax même boo liggéeyul c'est des choses qui vont se faire maintenant bilan au niveau personnel moom individuellement pris il a réussi parce que il a transhumé à travers ses stratégies il est devenu PCA yàlla na ko yàlla yokk yal na gën a bëri alal yal na bëri rëbb mais ngir yàlla ak yonent boo defee treize ans tu dois céder la place à des gens plus compétents da nga ne da jàpp ni jot na ngir mu xool yi leneen Moussa Sy bëgg na Parcelles Assainies mais malheureusement dafa mënul xam nga bu ma koy wax nit ñi dañuy fën damay foo du loolu dafa tële daal waaw dafa tële quoi dafa tële vraiment mhm. bëgg na am na yéene nag Parcelles Assainies ainsi de suite mais eh, yàlla mooy def loolu tam mais boo defee boo jéemee jéemaat jéem baaxul da ngay jox ñeneen ñu jéem parce que tamit voilà man jàpp naa loola ah. maintenant comme que moom nag mënul jóge foofu mais na ko nit ñi jëlee foofu teg fa ñeneen ñi nga xamante ne dinañ mën a defar dëkk bi parce que mën nañ ko danga jàpp ni euh, askan Parcelles dañ doyal si moom du askanu Parcelles rek a doyal si moom boo génnee Parcelles Assainies sax les gens vous disent que mais seen maire bi moom vraiment jële leen ko fa je profite de l'occasion aussi pour wax waa Kër Massar mhm. rassemblé wu fédéré parce que le maire que j'ai le député maire de Kër Massar mu nekk ci télé bi di jéem a défendre l'État au lieu mu défendre le peuple genre nit ñooñu dañ leen di xeex jëlee leen fa mhm. parce que ils mettent en avant l'intérêt des partis que l'intérêt du peuple mhm. est-ce que tu comprends donc dynamique d'ensemble la war a doon au Sénégal mhm. ndaw yëpp ñoo war a jóg manko bépp xeetu nit bu mel noonu ñu jëlee la fi da jàpp ni euh, doxul intérêt dëkkam quoi intérêt parti am lay sàmm mais comment tu peux tu peux juger maire bi nga xamante ne sa dëkk bi ay Zodiac ñooy jël ay ay ay ay ay ay Zodiac xam nga Zodiac mooy gaal yu ndaw yi gaal yu waaw ñooy dem di génnee nit ñi nit ñi dañuy xuus si ndox bi pour jëndi mburu bu ñu lekk ngay ñëw si télé bi naan je suis di jëm a défendre mais c'est-à-dire il faut que les gens arrêtent à nous à essayer de nous tromper avec les chiffres mhm. deux cent lañ si def trois cent milliards là c'est pas du factuel mhm. parce que loolu ay wax la rek c'est de la théorie ñun ce qu'on juge c'est ce qui est fait taw am na ndox bi taana dugg na si kër nit ñi. Mhm. le reste c'est pas important. li gën a am solo la bonne question qu'il faut se poser mooy lan la waroon def par anticipation ba lii bañ a am. mais le montant bi ñu ci def sax c'est pas important pour nous parce que duñ ko mën a justifier. ñoom ñoo war a mën a def seen i audit xool ñaar lañ si dugal ainsi de suite mhm. mais des personnes individuelles lambda yi nga xamante ne kenn ils sont pas légitimes mhm. ñëw ci télé bi naan tel milliard lañ si def tel milliard mhm. alors que ces trucs de milliards là loolu ay naxaat waxul politique la rek def nañ si tel milliard te mënuñu ko justifier par des papiers ah ñun ce qu'on juge c'est que les inondations persistent et durent yàgg nañ pas Parcelles Assainies waxuma Kër Massar bu nekk fii Dakar sonn nañu. Mhm. suñu yaay ñu ngi padool si ndox bi. suñu matériel bi yàqu na nañu mhm. Macky Sall defaral suñu réseau d' assainissement bi mhm. du nekk réseau d' assainissement c' pas lourd parce que assainissement bi am na fa ba pare c' juste revoir la technologie si station de pompage yi ak du matériel ñu defar ko fa je pense que ñun notre problème moo gën a facile à régler mais di dafa manqué volonté politique en réalité alors ñuy waaj a même bu fekkee ni sax ñenn ñi ñu ngay ruumandaat ni dañ ko wala duñ ko toxal yow lan nga si jàpp élection yi dañu war a maintenir li ni mel euh, wala dañ ko war a toxal loo ci gis. moi comme je suis un républicain je me dis que l'État a l'obligation de respecter le calendrier républicain gis nga la France si biir en pleine crise sanitaire lañ defee seen élection locale. mais loraange la leen jural de. non non non ban loraange lu jurul leen benn loraange. loraange bi mu leen jural mooy ñu xam ne kii mooy seen maire ñi baaxul ñu génnee leen te loolu bénédiction la je pense nombre de cas yi ñu doon détecté ci Covid 19 bi foofu la ëppee presque ci àdduna bi. Mhm. ils vont en élection rapidement. bien très prochainement non. Mhm. pour lan pour wuñ ko. c'est parce que ñooñu dañu am sens du patriotisme ak du respect des calendriers républicains ak du respect des engagements et de la parole donnée. Mhm. loolu la nasaraan yi ëppalee ñun. ñun dañuy jëlee par des manipulations pour se maintenir au pouvoir on manipule la constitution on joue sur obliger nos gouvernants mhm. ñu respecter le calendrier républicain moom seen mandat jeex na moom seen mandat jeex na depuis deux mille dix neuf mhm. comme fi mu toll nii ils sont pas légitimes ils sont pas légitimes te état bi sax dafa war def délégation spéciale jël fa sous préfet yi ñu def administration temporaire en attendant mhm. parce que fi toll nii on n'a pas de maire fépp ok kon daal élection yi buñ ko tuxal <laughs> buñ ko toxal nañ dem ñu gañe leen ñu jële leen fi donc ñu wax ci parrainage bi ci dialogue bi waxtaan nañ ko point bi nga xam ne dañ ko supprimer yow parrainage bi naka nga gisee tey suppression bi <laughs> tey annulé nañ ko léegi mel na ni xaw ngeen feex tuuti lu ma ko mënee wax. non non non le parrainage ça a toujours été n'importe quoi loolu moom doole politique la woon rek ay parrainage participation gis nga yow koo xamante ne bi ñu lay fal amul woon parrainage kenn tegul la ay barrières restrictives. Mhm. tu veux confiner le débat politique. Mhm. xam naa gars yi jaawale <laughs> débat mbas mi <laughs> ak débat politique bi d'accord c'est-à-dire le parrainage là. c'était euh, ça avait un objectif bien déterminé tant de ñan ñooy participer ci élection yi ñu ñu valider leen. Mhm. mais attends c'est pas sérieux c'est pas sérieux ay nit. cest dire que Go Faye bu jógee fee warul mën a bokk nekk candidat hein et puis ñun suñu technologie permettre ñu mën a identifier ñan ñoo def ay doublon fii signature fii kii def na lii c'est n'importe quoi man gis naa pare naa ñoo xamante ne parrain nañ plus de quinze personnes. benn nit. waaw oh, benn nit mais parce que notre technologie ne nous permet pas ñu mën a identifier loolu. c'est du n'importe quoi je suis désolé. Mm -hmm. donc bu ñu ko dindee aussi xam naa ne bon xamoon ju dañoo juumoon mais ñun dañoo mos a le le le parrainage mhm. alors ñu ngi koy agité fan yi yëpp politique. chef de l'opposition statut de l'opposition ñenn ñi ne Idrissa Seck ñenn ne Ousmane Sonko euh, bruit bi xaw a bëri trop euh, yow da jàpp ni période la ñuy tànn chef de l'opposition ou pas moi je considère que c'est un débat qui n'est pas pertinent qui est à la limite stérile Sénégal a d'autres actuellement les populations sont en train de vivre sous les eaux nit ñi ils ont en train de supporter des dégâts matériels considérables mhm. je pense que des milliards là yi ñuy wax ci chef de l'opposition mais au nom de quoi une personne bi nga xamante ne légitimement euh, voté wuñ la nommé wuñ la ñu lay jël ay budget de deux milliards di la ko jox mhm. c'est n'importe quoi deux milliards lañ agité mhm. deux milliards est-ce que c'est-à-dire gars di divertir l'espace tànn chef de l'opposition mais je dis non j'en ai pas besoin mhm. pourquoi ngay jël àllu askan bi au nom de quoi alors que suñu hôpitaux yi mais boo demee si àll bi nga gis de foo xamante ne ay postes de santé les femmes accouchent si ay ay charrette mhm. hmm? médecins yi doy ñu mais mhm. nañ jël xaalis boobu ñu orienté ko si des aspects prioritaires je pense que euh, on gagnerait à être plus intelligent et à être plus responsable am esprit citoyenneté c'est-à-dire alalu askan bi ñu delloo ko askan bi mhm. askan bi nag nekkul quatre cinq hommes politiques yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw mhm. euh, di def n'importe quoi nit ñi di leen tàccu mhm. ñun on respecte tout le monde mais on ne tombera plus dans le piège des hommes politiques yi nga xamante ne dañuy dem fee di def ay manigances ñu ñu ko supporté loo et je lance un appel aux populations des Parcelles Assainies mm en lançant cet appel aux populations des des Parcelles Assainies je je lance je la je je, je lance l'appel en même mooy Parcelles Assainies du Macky du Idrissa moo fay ñëw nekk maire. Mhm. Mhm. du Ousmane Sonko moo fay ñëw nekk maire du Madické Niang moo fay nekk maire. faut pas ñu toog di accepter ay nit toog fële def seen i combine toog carte ainsi de suite. Mhm. coalition lii la def après ñëw tànnal ñu kenn parce que le. mais mode d'élection bi changé na justement. changé na mais c'est toujours dans des de coalition ainsi de suite. il faut une liste citoyenne. bi nga xamante ay dignes fils du pays li ñuy quand je parle du pays mhm. de la localité la jël mhm. xool des thèmes de référence clairs seen jaar-jaar seen bonne vie et mœurs mhm. seen capacité ce qu'ils ont prouvé leur histoire leur historique ñu teg leen fa ñu xam ne ñii mën nañ defar dëkk bi mais bu ñu toogee fële parce que ñooñu ñu may wax ñoo xamuñu li xew Parcelles Assainies kenn dëkku fa ñun waa Parcelles Assainies ñoo war a toog nag tànnal suñu bopp suñuy doom ñu xool kan moo si diriger dëkk bi mu def une fédération ànd ak de la localité ñu jël salaamaaleykum allo. allo waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax tur bi ak foo ñuy woowee. ndax nu kazaalika Moustapha Top la. Moustapha Top bisimilah yaa ngi ci biir. waaw tey da ngeen ku am solo. Hmm. muy soxna Binta moomu. Hmm. man jur boo ko demee di uti ji garab rek euh, laa mën a seede. Hmm. est-ce juum. allo il s'est xam naa ni dafa juum. ba tax na rek li nga xam ni nag moom moo jëm ci wàllu moom léegi dañuy jeexal wàllum politique dañ la gis nga jàppale woon Ousmane Sonko ci élection présidentielle yi. Mm-hmm. fan yi dégg nañ benn bruit. sa diggante Ousmane Sonko la wala ñi nga xam ni ñoom ñoo koy jàppal tànk au niveau local. voilà bonne question euh, je tiens préciser que je n'ai aucun problème avec Ousmane Sonko président du parti PASTEF. Euh, dans tout nos discussions, il a été courtois et correct avec moi. Mmh. Il y a quelque temps, euh, lors d'une de mes sorties, on la question de savoir c'est quoi le, la suite de la coalition. Mhm. xam nga dañ nekk dëkk boo xamante ne Sénégal la tudd. bëgguñu ko sincère dañu bëgg ay affaire de masala mhm. loolu moo yàq dëkk bi. Mhm. man nag yàlla dafa am nu ma bindee mooy damay dox ci dëgg. dama ne. ce que je fustige man ak le les membres du mouvement réaction mooy la coalition Sonko au Parcelles Assainies depuis bu ñu jógee ci élection yi woowante tooguñu waxtaanuñu kenn xamul ku nekk fan la jëm. Mhm. ce qu'on exige c'est quoi bu fekkee ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci coalition bi ils sont toujours intéressés par la intéressés par coalition. Mhm. mais il faut qu'on se qu'on se voie qu'on mm discute exactement ci ci stratégie yeeg yooyu. Mhm. maintenant ñun on n'a pas de problème que ça soit que qu'on soit ensemble qu'on soit qu'on soit pas ensemble y a pas de souci mhm. d'accord mais nañ xam fan lañ jëm si on n'est pas ensemble on n'est pas ensemble y a pas de souci on n'est pas des des ennemis ku nekk continuer sa yoon mhm. du dëgg bu nekkee on va continuer ensemble aussi ñu wax ko exactement xool naka lañ say demee mhm. mais je pense que c'est irresponsable ay kilifa am seen jaar-jaar nag ñun ànd ak yéen ba pare ah, mais doo leen jox considération loolu man du ma ko accepter les membres du mouvement réaction duñ ko accepter c'est aussi simple que ça. Mm-hmm. mais amuñu benn problème ak Ousmane Sonko. Mm-hmm. Ousmane Sonko on l'a on l'a soutenu aux élections et on on l'assume. Mm-hmm. fu ma toog dama koy wax mais nag. quant quant à attendre que di topp mel ni xaar di xaar nit ñi par rapport à seen calendrier ngeen di orienté wu. nga jàpp ne dañu am benn calendrier bu nu fësal di jéem a dem seen yoon wala. noo noo non non jàppuma dara peut-être que bon. wala ñu yëglu. waaw dañuy yéglu rek léegi ku nekk nu ngi koy interpréter aussi on est on accepte mais ñun wax nañ suñu xalaat et puis on l'assume ku nekk nu ngi koy interpréter aussi y a pas de problème c'est un problème pare nga pour àndaat ak ñoom ci élection locale yi bien sûr bien sûr ñun pare nañ pour ànd ak ñëpp du waa Pastef kese dañu pare pour ànd ak sax waa APR yi waa APR quand je dis APR je parle pas de de benn franche APR waaw ñi nga xamante ne tey gisuñu seen bopp si APR laay wax mhm. ñi nga xamante ne xam nañ ne les les élections beneen enjeu la. Mhm. bokkul ak élection présidentielle parce que bii du Macky Sall ngeen di bëgg tànn pour nekk président c' important de le dire. Mhm. d' nit ñi xam nañ ne bii du Ousmane Sonko la tànn pour mu nekk maire. Mhm. nit ñi xam nañ ne du Idrissa Seck la ñu tànn pour nekk maire bii c' autre chose c' à dire on doit être indépendant sax de ces personnes là ku si nekk nag dañuy respecter seen leader li ngay def. y a des gens yi nga xamante ne tey ils se mhm. ñooñu am nañ légitimité plus que les partis politiques maintenant ñun euh, man awma problème kii PDS la ne kii APR la ne kii tel tel tel la ne. Mhm. ce que je veux c'est que ensemble on constitue une liste citoyenne. Mhm. defar un conseil municipal de qualité avec des ressources humaines de qualité une liste citoyenne pour l'intérêt supérieur de la commune. taalal nga ci loxo mel na ni ñëpp kon. absolument ok euh, Go Faye fu mu jëm. Euh, c'est un euh, jeune qui a grandi au Parcelles-Assainies, qui a étudié au Sénégal, qui a fait sa carrière professionnelle au Sénégal et qui est en train de faire son bonhomme de chemin. Mm-hmm. Et qui a la ferme intention et la volonté et l'ambition de, de servir sa localité à mm -hmm. travers ses différentes expériences. Mm dañuy jéem a tëj jotaay bi mais dañ lay bàyyi euh, moo bu mujj bi nga daal ñu koy wax tey lan mooy kàddu gu mujj gi ci euh, émission gox bi. Euh, bi nga xam ni message bi nga xam ni war nga ko mën a jagleel askanu Parcelles Assainies bi nga xam ni fa nga yeewoo tey. Mhm. alors message bu mujj bi tey lan la. waaw di di di di leen remercier d'abord yéen euh, waa waa émission gox bi yow Memba. Mhm. ak sa équipe bi yëpp. di remercier euh, auditeurs u réew mi réew mi réew mi FM bi yëpp. Mhm. mais di comme j'ai l'habitude de le di lancer un appel solennel. à la jeunesse. la jeunesse devra tout refaire. tout recommencer sans profiter d'une quelconque transmission générationnelle. Okay. Parce que, euh, comme li may wax rek le legs l'héritage a été vicié par des hommes politiques yi nga xamante ne leur vision de la politique est obsolète aujourd'hui mm. euh, quelquefois ils, ils ont mis les intérêts de leur parti de leur entité au-dessus de l'intérêt du peuple mm -hmm. il faut que les choses changent ñun c'est ce changement-là qu'on veut apporter on l'a enclenché en on va le consacrer incha allah. Mhm. en mille vingt et mhm. di wax waa Parcelles Assainies dañu xam ne Go Faye seen doom la. Mhm. aw ma euh, parti politique aw ma mouvement citoyen bu may génn bu may ŋàññ. man Parcelles Assainies laa gëm moom mooy star bi. te dañu war a xeex ensemble boole suñuy doole pour que état du Sénégal bàyyi xel Parcelles Assainies def fa ay projet d'envergure. def fa li nga xamante tey bu ñu génnee dinañ mën a ndamoo suñu Parcelles Assainies mhm. mais Parcelles Assainies amul lu ñu fa mën a ndamoo mhm. suñu ndaw yi dañuy dem génn si biti di football yi mhm. ku feebar da dem si biti faju ji ndox bi bu ñëwee suñu yaay yi génn je pense que c'est triste c'est très ñun nag ñoo mën a xeexal suñu bopp euh, changer loolu en ayant du caractère en ayant le courage de dire à l'autorité que Parcelles Assainies ci Sénégal lañ bokk te boo leen ñu ko defarul prochaine fois duñ leen mouvement réaction parcelle la est-ce que mënuloo leen wax nii national la wala parcelle la euh, base bi nekk. absolument mouvement réaction c'est une c'est un mouvement d'envergure nationale. Okay. mais pour l'instant. Mm par rapport à notre stratégie on fait focus sur notre localité. Mm kon Go ñu ngi lay sant di la gërëm. ñun seen mën naa leen di gërëm di nuyu waa mouvement réaction yëpp. di mhm. nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi doon déglu émission bi. Mhm. di sant Adama Diallo moom supporter Paris la xam naa mi ngi xaar defe tam bu ngoonee mbokk yi sant leen gërëm leen jox leen dig daje dimanche ak beneen invité incha allah rabbi